السلام عليكم ورحمة الله بكي لين ني دي لين زيار لين بالو حق دي لين بال يعني برم سبحانه وتعالى مبول يجقل نيوتي المسألة رقم 34 تي حكم طهارة الخبث من ثم إن المصلي غير القادر على إزالة النجاسة إن صلى صلاته ثم وجد ما يزيل به النجاسة في الوقت أي قبل خروج وقت الصلاة أو وجد ثوبا آخر ندب له الإعادة ما دام الوقت فإن خرج فلا إعادة كتاب فقه العباد والله أعلى وأعلم مسألة من درجي فنوير ñeent ba نيونتي ñu تي صبي laab mu ne ki julli ak sobe soo xam ni amul ndox mu mu ko dindi koo xam ni dafa julli ci sobe soo xam ni amul ndox mu mu ko dinde te amul beneen yére bu mu sol ginnaaw ba mu jullee ba noppi mu daldi gis ndox wala mu am beneen yére bu mu sol su boobaa dañoo sopp mu baamu julli ki su waxtu wi weesoo nag jaratul mu koy baamu téere bu ñu wax fiqul ibaada moo ñu jàngalool lool yàlla mooy ki kawe te xam lépp li mu ñu jàngal tey mooy ki nga xam ni dafa jàngoon nañ keroog ne ki nga xam ni waxtu julli dafa jot mu taq sobe te amul ndox mu mu ko dindee te amul beneen yére bu mu ko remplacer ba mën a julli su boobaa day julli ak sobe soosi fekkee ne moom dafa julli ak sobe si ba noppi daal di gis ndox nan lay def ne su boobaa dañoo sopp mu dem jël ndox moom mu raxas ko baa mu julli sopp buñ ko waxee mooy loo xam ni dañ koo bëgg rek lu bëgg la boo ko deful dara doo la ca fekk wala mu julli ba noppi gis beneen yére boobaa sopp nañu mooy bëgg nañu mu jël changé yére boobu dem julliwaat bu fekkee ne nag dafa julli ba noppi ba waxtu wi jeex mu doog a gis ndox mu mu ko raxase booba da koy raxas rek waaye du mu julli gi bu fekkee ne dafa julli ba noppi ba waxtu wa jeex mu gis beneen yére ba mu sol su boobaa it day changé yére bi rek waaye du mu julli gi loolu mooy suñu darsi tey yal na yàlla defal dégg ak وقولي هذا وأصاف الله عظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامي لميلاد من التابتين ماضي تي في بنك إن شاء الله إن السلام عليكم